problème parce que ñaar rek bañ géwél mooy ku sa judd rafetul mbaa amoo may géwél doo bëgg géwél ah waaye ku sa judd rafet nga am loo maye nday aram turé bañ koy mayee nu mu def ak man waaw <laughs> ah, yow mii ba ngay génn noo def ak man <laughs> wallaay ah mais man xam nga dama ni man du ah. ma mbubu du ni jonn ñu koy natt ci ëkk man dama fii laay jël exemple bi ci yéen ñaar du ma sori ku ne bëgg nga ku lay waxal lu baax nday aram ku ne sa lu baax bëgg nga ku la ko waxal ki la koy wax nag mooy géwél bi géwél bi na na ko mate na ko mate na ko mate pap ndax réew mi li fi jaxasoo ci wàllu politique ndax géwél yi taxawoon nañ ci lu ko saafara tudd ci ñaar nag wax ji li muy bari yëpp fa lañ jëm diggante euh, président Macky sàll ak Ousmane sonk ndax sànq bi ngay tudd ci opposition bi gis naa ni tuddoo ko wala da ngeen a amul rapport Ousmane Sonko amuñu rapport musuñu bokk bokk nañ jataay mais musuñu joxante sax loxo lu ko def. amul yàlla yàllaa ko dogalagul bi su waree nekk dina nekk. waaw ah. jotaay ba kay nga waroon laaj. non non jotaay ba ni mu demee dañu dajee Tiwaawoon ma ànd ak suñu groupe E-Media euh, maa ngi leen nuyu baax Mamadou Ibra Kane ñoom Alassane ak du Ndiaye ñuy dem di ziare ji la veille di gàmmu ñu dem di ziare ñuy euh, sëñ Babacar Sy Mansour mu boole ñoo ak sëñ Maodo Sy mu sëriñ Abdou bi ñu ñëwee que dañu toog sëriñ bi war ñu recevoir délégation Yewwi Askan Wi ñëw mi ngi ànd ak euh, Aïda Mbodj. Déthié Fall euh, kii euh, Ousmane Sonko ak euh, keneen ki nu mu tuddati waaye waa ju baax ji waaye te dëkk Thiès Pa Babacar Diop keneen ki hmm. keneen ku baax ki waaw ku baax ku baax ndeysaan keroog ñun ñoo fa daje mais man jotul ñoo joxante loxo man ak moom parce que keroog bi ñu ubbee waxtee dañu ubbi waxtaan wi rek man maa wax sëriñ bi wax xalifa saal wax après sëriñ bi ñaan kero jataay ba noonu la fa demee waaw ah. amuñu amuñu occasion pour mën wax par rapport ak ñeneen ñi Barthélémy Dias li ma koy bëgg-bëgg yëpp li mu nekk sama xar yëpp li ma koy bëgg ne la mus benn yoon lañ ko laak mus jox loxo conférence su femmes yi nekk fii Mermoz te pourtant nit ku ma naw laa dama ko naw Khalifa Sall moom gisee nañu ba tey jox nañu joxante nañu loxo. d'accord ginnaaw loolu laaj bi Ousmane Sonko ah. mu suñu mu suñu mu suñu. léegi diggam ak ni mbiri tàggatémbee ci moom ak nii noo koy xoolee. lu ngeen ci dox yéen communicateur traditionnel. xam nga dafa am loo xam ni. bu amee hmm. dox ci dafay xaw a weesu hmm. Ousmane Sonko dox ci diggante mu président de la République ñun daf ñoo romb daf leen wees daf ñuy romb daf ñoo romb hmm. maanaam avant lañ ca waroon doxee avant daf ñoo romb ñun li may wax nag wax la mais déggin la laaj ñu bëggoon nga expliquer ñu ñu xam li ngay wax lu mu Ousmane Sonko dafa dugg ci langue politique mu duggee ci langue politique li mu njëkk a def mooy dafa wane ni moom gëmul li ñu gëm. Hmm. kon Ousmane Sonko mosuma gis ñu ne kii mooy géwélu Ousmane sonk mosuma ko gis. ah loolu ko jàppal. non jàppalu ma ko dara man amul lu ma lu ma koy bàyyil maanaam. Hmm. dama ko gisagul. Senghor bi mu fi nekkee Yandé Codou géwélam la woon Abdoulaye Wade bi mu fi nekkee ku ne xam na Kati mbay ak nga xam ne tamit moom mooy euh, géwélam bi naan ki naan Abdoulaye Wade ay góor gu dëgër. ak yeneen géwélam yi dëkk ka moom Kébémer. waaw Macky Sall bi fi nekkee ku ne xam na ni Daha Seck ak ñoom kii Ngom ñoom ay géwélam lañu Ousmane Sonko gisuma géwélam te ñun bu nuy ñëw ci kilifa. ci sa ci non nga baal ma ay président lañu. Mhm. Sonko amu ko fi nomba président. mais dafa bëgg nekk président Ablaye Wade avant muy nekk président la ànd ak ay géwélam du Diouf avant muy ànd ak président la ànd ak Mbodj Seck moo doon géwélam ñoo bokkoon euh, école primaire sixième primaire ba cm Senghor moom xam nga ñun dañoo judd rek fekk ko Yandé Codou. Yandé Codou. ba bi muy gaañu sax Yandé dafa woolu Yandé Codou Yandé Codou tiim ko way ko une semaine après mu gaañu kon kooku amoon na géwél Ousmane Sonko ñun bu ñu xamoon géwélam ñun communicateur traditionnel yi. Hmm. ci moom la ñuy jaar. ni ko c'est-à-dire may waxee nii dafa ah. xóot daal. Ah. ñun du ñu dem ci directement ci moom ci géwélam la ñuy jaar ni ko yaay géwélam ñun ne bu nu sañoon nga waxtaan ak moom ci nànkam mais gisuñu ko ak géwélam. mais ci lan nga bëgg a ba pare ci xam nga su ma doon wax man. si 2019 yéen a ngi fàttaliku suñu émission TMTC. yi ñu daan def. boobu la soo ko di commencé boobu affaire Adji Sarr yi yëpp amagul. Hmm. am na benn bis boo xam ne dama ñu leen ñi ànd. 19 2018 2020 parce que nit ki boo ko bëggee danga koy wax dëgg boo ko bañee danga koy wax dëgg mais ànd ak nit ki lu mu def nga ni baax na doo gis ay défaut moom dina dem ba day jàpp ne amatul défaut. moo tax man Ousmane Sonko dama ko yërëm. Hmm. parce que dafa ànd ak ñoo xam ni dañ koo topp rek ci li ko neex. bi ci des. Hmm. Ousmane Sonko dafay ndaw day xale. bëgg réew mi réew mi boo ko bëggee da am foo war a jaar xam nga fi nga war a jaar mooy. mooy fan xool nit ñi li méngoo ak ñun suñu culture fii ci réew mi nga adapté wu ci maanaam di communiquer. religi religieuses yi maanaam ñi nga xam ne ñoo ŋànk couleur couleur diine yi. da koy def de. waa maa ngi ñëw waxewuma foofu de. ah tey di nga jékki-jékki ñu ni Déthié Fall tey Sorano tuddee nañ ko benn conférence Déthié Fall dem fa saafante ak ñooñu wala Khalifa Sall dem fa saafante ak ñooñu coté boobu laay waxee mais man gisaguma dara lu am ci réew mi ñun Ousmane Sonko lañ ko tuddee parce que ubbiwul ay buntam ci loolu. te loolu dafa bokk ci suñuy réalité dina tax nit ñi mën ko xam nit ñi xam ki mooy kan bu ëllëgee ñu mën di ko défendre. li ko tuddeewul drapeau ca làmb ja tuddee ko ay. ba tey yooyu yooyu yëpp yooyu na ne yooyu sax njóog ba tey ci li may wax. mais waaw day mais mais day day neexal da koy. waaw ah. day gën a neexal day gën a ah. neexal yoonam. tey bu ñëwee ci làmb ji tey imagine toi il faut ngaari jël micro bi waa tey na drapeau drapeau Ousmane Sonko la moom lañ ko tuddee nit ku baax naa nga mu wàcc ñëw nit ñi kii ko ñu xam ne kii vraiment nit la ko xam ne xam ni xam na suñu réalité mi ngi ci et puis kooku bu muy ñëw wala boog ci discours am li ñuy dégg moom rupture la wax indi leneen euh, teg loo xamante wuute na ak nit ñi ni ñuy doxalee. Mm-hmm. est kon ni muy doxalee nii war na la bett. maanaam yii ñuy def man euh, jàpp naa ne du yoon te euh, xëy na doxalu réew mi du ma doxee ci noonu est-ce que yow kon ni muy doxalee nii war na la bett. kon maanaam li muy li tey bu ñu tuddee woon Ousmane Sonko drapeau. Hmm. Euh, xëy tuddee ko beneen événement. Hmm. te ñu xam li ñu nekk ci ginnaaw ndax yi budul dara di nga yëkkati dara jàppale nit ñi ci xew ma. mais loolu kon moom daf ko a def rupture. non de dama je sais que damay wax parce que ma ne. nga man xam li ngay laaj nag. waaye ma xam naa li may tontu mais mais yi événement yi tuddee yëpp ñëwuñu fa loxoy neen. après. ñëw ñu fa ah. loxo yi nekk. après ku ci ne dañuy ñëw pour jàppale. et après la bu dee moom xam nga man xaw ma Sonko <laughs> xamaat ma <laughs> yow xam nga tase rek jotaay man tasewu ma sax ak moom si jotaay. <laughs> ma dugg c'est juste damay ne damay jéema a euh, wax ne bu fekkee moom foofu lay waxee ne leneen la bëgg a indi. est que kon mu doxalee nii war na la bett. no du ma bett parce que nit ku ne ni nga mel noonu ngay doxee. mais dafa war a xam ni moom comme dafa bëgg a yor réew mi il faut mu xam li nga xam ne dafa bokk ci réew mi te yàqut réew mi loolu mu ànd ceeg waa réew mi foofu rek laay waxee. Hmm. xam nga làmb dafa bokk ci réew mi. Mm-hmm. tey ji xanaa bu nekkoon président du ne làmb dootul amati wala da koy arrêté. ah déet waxu ko. te promoteur biy tëgg làmb wut benn parrain tudde ko ko pour sargal ko kooku moom sargal la moom tey bu ñu ko tuddee làmb maanaam pour sargal ko la moom Ousmane Sonko mais xanaa ko bu nekkee président war ta bañ loolu loolu ci ci fi la bokk di. léegi nag bu dee même bu dee ñaar dërëm moom la def moom mooy xool lu mu fay def bu fa demul dara it ñu xam ne sargal nañ ko kooku digganteem ak kooku tudde la mais ñun image bi ñuy soxla mooy. Hmm. ñun ni su ma toogee sama émission ni tey nag drapeau président Ousmane Sonko la woon vraiment ñëw na fa ànd ak une forte délégation xaw ma sax la mu jox promoteur mais geste bi mu def ak déplacement bi ak délégation bi ñun boobaa loolu la ñuy wax. xale yi ànd ak moom dañoo réer. non euh, xale yi ànd ak moom am na ci ñu am na ci ñoo xam ne aussi dañoo amul kilifa. Hmm. man de samay doom téye naa leen man samay doom dama leen a téye man sama doom maa ko jur juruma sanq nee naa la fii Pape Ousmane looy bëgg bëgg ko ndànk looy bañ bañ ko ndànk Ousmane Sonko euh, yàlla def na ba ma dalee wax ci moom ak léegi position ba ma taxawoon rek laay taxawee sénégalais la xale la jàng na bëgg naa jot réew mi. waaye il faut mu wut ko ci ak dal parce que loo wutul ci ak dal neneen noo ko amee rek fitna lay doon xam nga wut ak dal mooy lan. mooy. sortie yi muy def man Ousmane Sonko su ma ko doon digal li ma koy digal dëgg bu doon mën a. Hmm. communication bi ko defaraat. lu la ci. communication bi dafa metti ah communication bi dafa metti dafay dafay wane benn accent grillé boo xam ni. lii mooy am wala ma def lii. ndax du liñ ko tega. di justifier ni muy waxee. mais avant ñu koy tegal yi naka jekk moom noonu lay doxee day défier état Ousmane Sonko jotewul ak Macky sàll Ousmane Sonko état la joteel bi ci des moom benn nit la joteel muy Adji Sarr ko Macky Sall bi ci des Mame Mbaye Niang la joteel jiñ ko état bi dëgg gis bu ñuy waxtaan hmm. aussi nanu wax li fi nekk quoi. waaw ah. je man géwél laa boo xam man entrepreneur laa. dama yore sama géwél bu am métier laa. entrepreneur laa menuisier ébéniste laa. dama yore sama société di liggéey nekk ci télévision ñu may fay salaire bu baax ma yor sama njaboot. ba may am million Ousmane sonk mënu ko am. Macky Sall mënu ko am. man dara feesul sama bët. géwél pire laa nag je suis fier d'être griot. ndax ci réew mi laa bokk am cër ci réew mi di wax lu baax dinaa dajeeg téeméeri nit juróom-ñett fukki nit ñi dinañ ma ni saala bii di bëgg naa ndax nii ngay waxee. man faruma fenn Sénégal laa far président Macky Sall dama ko naan attaqué ba da dañ ma naan dama naan ngeen sax ñu nekk ci mu naan mais yow loolu la Macky Sall def man leen lii muy def lii laa àndul. parce que boobu ah. jàppoon naan day def troisième candidature. leen bis bu ko defee maa ngi koy njëkk attaqué. waaw waaye jàpp naan jusqu'à la preuve du contraire du ko def man naka jekk foofu laa tax man jàpp xamoon naan du ko def parce que gor boo xisee ba wax moomatoo sa kàddu sa kàddu la moom. yaa ngi wax communication Ousmane Sonko ma ne liñ ko teg nag. avant ñu koy teg liñ ko teg Ousmane sonk lan la déparé da ngay xool weñ ga mën nga bañ a ca mbànjaxaan nga. la mu déparé ñu fekk ko fi mooy gis lu dul dox mu teg ci loxo. lu tax yemul ci loolu. da ca yokk leneen. Ah, li mu ci yokk mooy lan. mooy. restez chez vous couvre nga am loo yëg sa muy metti demoo hôpital fooy dem Sweet Beauté loxo mun na laal lu mu bëggul laal rëcc laal ko bët mun na xool lu mu bëggul ko mu rëcc xool ko. làmmeñ sax mun na tudd lu mu bëggul tudd mu rëcc tudd ko may tànk fu mu dem borom la neex ah maa wax lii. kon li ñu koy tuumaal moom la. néew ma moom la mais bu fa demul woon li xew du xew bu demee bi mu génnee lan la wax demuma fa Mamadou Massaly toog na barki dem faram fàcce ni ñoom ñoo ko ni politiser ko ko Macky Sall boo deful li ñu def Khalifa Sall def ko Karim noonu lañ lay def mu jiñ ko Macky Sall lu ko jiitu El Malick Ndiaye safrula Maître Tall demul ci benn plateau télévision yore kaamil Ousmane Sonko dem fa dëgg loolu dëgg Bassirou Diomaye Faye lu mu wax Ousmane Sonko xamul Adji Sarr Ousmane Sonko génn dem naa fa demati fa demati fa ñett wax yi ba mooy ciy dëgg mu jëñ ko état combat bi tàmbali ñee tamit def ci seen i pexe ku ne dugg ci coow li bari ñaari at loolu tënkuñu ñaari at loolu tënkuñu. mujjee ci mu demee ba ci biir mu demee ba ci biir. wax ci di bëri accident làmmiñ kenn du ko constat fii la taxaw Kër Massar ci mitin ah. ni maa mbay ñaa dafa lekk vingt neuf milliards Prodac lépp a ngi nii ma téye dossier yi indil preuve amoo ay preuve c'est-à-dire nañu wax les faits man je n'ai rien contre personne mais nag man li ma gis nag tey sénégalais gis ko ci réew mi nag muy dox wax dëgg yàlla sil ma xawuma te du ma dof te du ma naata xoona te du ma judd jëri du ma mbadantaan fii laa dëkk ci réew mi modifié ah, Mame Mbaye mais alaaji ànd ak loolu yëpp lan mooy justifié léegi bu dee li ñu wax yëpp ni loolu la moom moo ko def lu tax ñu bàyyi ko këram demul ñëwul loolu nag man ba tey man ñii damaa jaaxal man ñii